seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi dendee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance auto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone di 78 171 0303 wala 76 517 10 10 seen agence de voyage Minan Travel moo leen di may li ci yéene kaay cher gentene di enquête 221 dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook bis bi le jour mu dellusiwaat ci wàccaay élection présidentielle yi yéenekaay bi dañu xamante ne ba léegi ci sénégalais yi ngi toog di président Macky Sall jàppal leen bis bu baax ngir ñu mën a dem ci élection présidentielle yi waaye moom président mu ngi woon tekk tekkaaral démb daal la yëg ne ni tey ci alxamis ji bu 19 heures jotee ñoom nag ci wàccaay élection présidentielle yi naka la ñuy fexe ba élection présidentielle am lépp moom président Macky Sall dina ci dellusiwaat tey ci ngoon jërekaay bi ne du yem foofu moom président Macky Sall ndax démb ci conseil des ministres bii sàkku na ci ministre de la justice ñu mu yolomal yenn ci ay dossier ñu mën a génne ñenn ñi prison comme ça jàmm mën a am ci Sénégal ba tax na yéenekaay bi di laaj ci mbaadu président Macky Sall dafa bëgg a génne prison nag président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye lan moo wundu ordre yi mu jox nag ministre de la justice looloo jëra laajte enquête yéenekaay en tout cas jamono ji ñu ngi ci tension moom sénégalais yi laa la wax ñu ngi ci crise politique goo xam ne boole ko ki arrestation ak wàccaay élection kenn xamagul kañ lay doon doonte président Macky Sall nee na tey jii dana wax ak askan bi ba tey yéene kaay bi ne surprise mën naa am ci déclaration président Macky bi de à tout bi a na jër coow li bari lool lenn wunu ko lu yi nga xam ne président Macky Sall def na ci tekk tekkaaral moom lañ ko sant gannaaw décision bu conseil constitutionnel ni ki démb nag dañoo jékki-jékki arrêté maître Ngagne Demba Touré gannaaw ba mu jugee koo woon ca Mali dugg si Sénégal ministre de la justice doon xam ne ne képp ku nekkoon ci mandat d'arrêt laa la wax à tout mën nañ laa jàpp ni ki démb nag la ñu fekki maître Ngagne Demba Touré ca këram waa dig jàpp ko waaye moom maître Ngagne Demba Touré fa mu mujjee nag moo di rëbës yéenekaay bi ne fi mu toll nii day nguur gi dafa mel ne dafa kase nag série de libération yi nga xamante ni moo nekkoon ci détenu politique yi ji ñëpp ñi gis ay xale ñuy génnee ci kaso bi waaye ba ñu jàppee laa la wax Ngagne Demba Touré la wàññi rythme bi yi bëreetul xale yi ñuy génnee jamono ji Alioune Tine moom di sàkku ci président Macky Sall mu bañ a may nopp nag ñi nga xamante ni ay saytaane lañu naafiq yi ak ñi ko bëgg dugal nag ci guuta na leen moytu te continuer nag jàmm gi mu woote Walf Quotidien lii dëgg tey dëgg kay moo di fi mu toll nii opposition bi mayatuñ leen jàmm duñu woote rassemblement ba ñu permettre leen ko te jamono ji nag li état bu Sénégal gi xërtal ci seen kaw mooy jël ay takk der ñu topp seeni cortège caravane laa la wax permettre tuñ ko benn candidat bu nekk ci opposition bi lii tax yéenikaay bi di laajte mbaadu jaay doole la nguur gi su tayee mu ne dafay woote jàmm bu subaa mu teg yi nga xam ne ñooy dem ci élection présidentielle yi mayuñ ci kenn jàmm vox populi na jàmm gi daal Macky Sall moo ko yor bu jàppee datu élection présidentielle yii dana gis na réew mi laa la wax jàmm dong la nu bëgg en tout cas li wértéer moo di moom président Macky Sall jël na ay mesure am ñeel élection présidentielle yi ni ki démb ci conseil des ministres bi te yemul ci mesure yi ndaxte te ki tey jii ci alxamis ji war na jàkkaarloog presse bi àddu nag ci situation bi nga xamante ni moo ñeel processus électoral bi rawatina li candidat bi sàkku ta mooy ñu jàpp datu élection présidentielle yi ci na mu gën a gaawee moom président Macky Sall war a waxtaan ci climat sociopolitique bi démb ci conseil des ministres bi nag lim fa jot a jëlagum ko mesure na xaw na daal xel ndax sàkku na ci ministre de l'intérieur mu jël disposition mi yépp ngir mën a organiser élection présidentielle yi ci na mu gën a gaawee lu jëm ci date bi nag yàggatul dana ko jàpp gannaaw ba mu waxtaanee ak acteur yi ba noppi yemu ca moom président Macky Sall mu ngay feddale am ci organiser élection yu jaar yoon leer nañ yoo xamante ni du am benn parparloo sàkku tamit ci ministre de la mu finaliser yenn ci ay projet yoo xamante ne nii la mu ca jublu moom président Macky Sall mooy jàmm dellusiwaat ci dëkk bi dal am ci biir réew mi di jéggale tey jëllale li ni mel nag ñoom teen jot benn projet de loi d'amnistie bu mën a génnee président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye en tout cas coalition Diomaye président moom lijjantewuñu sax ay amnistie jamono ji li ñuy lijjanti moo dañuy respecter calendrier électoral bi sàkku ci président Macky Sall mu jàpp datu élection yi ci na mu gën a gaawee ñoom waa coalition Diomaye président di leeral seen position ci dialogue bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy woote demuñu dialogue tey demuñu dialogue suba bu ñu doon dem sax bay dem dialogue day fekk ne benn point dongo ci am mooy moom président Macky Sall dafay jàpp datu élection yi ci na mu gën a gaawee ñu fixé date bi nag daal di jeexal dialogue bi yemuñ ca ñoom waa coalition Diomaye président ñoo ngi exiger ci na mu gën a gaawee ñu respecté processus électoral bi bàyyi caaxaan géeg wiiri wiiri gi jàpp datu élection yi ñu dox jëm ci 2 avril Macky Sall mën ñoo abal nag ca biir palais ba ñoom coalition Diomaye président di fàttali président Macky Sall décision conseil constitutionnel bi nga xamante ni laa la wax kenn du ko n ko war a respecté yéenekaay bi ne fi mu kay candidat yi kenn ku ci nekk mu ngay waajal boppam waxuma la coalition président sax waaye Amadou Ba directoire de campagne am bii ngay woote mobilisation sàkkuwaat ci militants yeeg sympathisants yi ñu gën fagaru ci jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal élection présidentielle professeur Cheikh Omar Diagne moom yàkk lu mel ne xamee laa la wax nguurug Macky gi teg ci di xamal président Macky journal bii jàpp sab dat moom professeur Cheikh Omar Diagne ne lii ak a yomb waaye ni mu diisee ci président Macky Sall leen kese lay wundu mooy parewul pour organiser ay élection présidentielle l'observateur ne crise politique bii ñuy dund luy njiig di ñaag nag président Macky Sall mooy njaag ndax moom dafa bëgg di buur di bummi décision yépp moom moo koy jël tey jii nag ci ngoon war naa jàkkaarloog askan bi lan la fay wax moom président Macky Sall est-ce que da cay profité proposé askan bi nag mooy poussé président Macky Sall mii mu daal di génne ci grande porte bi ci jamono joo ni kenn xamul bëgg na bàyyi nguur gi waaw wala déet nekk ni na en tout cas Khalifa moom moo ngi xëcc nguur gi waaye il faut que ñu lijjanti est amul double nationalité li ñu recarré Karim Meïssa Wade kooke bi mujjee dal Rose Wardini mbaadu dafa mujjee laal nag moom Khalifa Sall en tout bi xamal nañu ne amoon na fi nationalité française de moom Khalifa Ababacar Sall laa wax amoon na fi carte nationale d'identité française boo xam te ni ngi ko defaroon le 27 mu waroon a jeex passeport boobu mu ngi waroon a jeex le 29 décembre 2015 mi est-ce que renouvelé wul am leeral yi nag ci conseil constitutionnel dong lañ ko doon xaar waaye gis nañ ne Khalifa Sall bëggu cee wax te conseil constitutionnel tamit joxuñu ci information vérification bii nag lu war la ndax loolu la ñu karee Rose Wardini arrêté ko tamit Karim Meïssa Wade ba bokkul ci élection présidentielle yi moom Khalifa Sall moo tax présenté wul ñoom maître Ngagne Demba Touré jamono ji mu nga ca rëbës yéenekaay bi desuwaat ci arrestation te ñuy xaman ne fi mu toll nii du yomb de ndax waa UPS national fi mu toll nii ñoo ngay woote mobilisation di avertir nag état bu Sénégal ne nañu génnee maître Ngagne Demba Touré mii ca na mu gën a gaawee lu ko mooy danañ yëngal dëkk bi kuréel yi yëngatu ci wàllum justice nag ñoo ngay jàppale Ngagne Demba Touré bokk na ci AGS SYTJUST ba ci UNTJ ñoom ñëpp ñoo ngay dénoncé nag arrestation seen collègue bii di maître Ngagne Demba Touré greffier yi sax fi mu toll nii may wax ak yéen boo moytul dinañ sóobu ci grève bu metti liberation yéene kaay di ko dëggal ne waa dig ni ki démb lañ dem ca kër maître Ngagne Demba Touré jàpp ji coordonnateur UPS yéene kaay bi deesuwaat ci lan moo tax ñu daal di jàpp maître Ngagne Demba Touré ne mandat d'arrêt moo nekkoon ci kawam lañu ñu koy tuumaal nag diis na ba fu diis yam bokk na ci association de malfaiteurs lëkkaloo ak benn kuréel terroriste ay kàddu yu ñagas yu mu jël teg ko ci président Macky Sall ay kàddu xupaate yu mën a yëngal dëkk bi ay kàddu yu ñagas tamit yu mu jël teg ko ci justice bi ak magistrat yi tuuma yii la ñu jël teg ko ci ndoddu Ngagne Demba ba noppi yóbbu ko ca rëbës las yéenekaay bi yemu ci ndaxte xamal nañu na jëri ndax collègue am yi nga xamante ni ay greffier lañu dañoo dóor ci table bi sàkku ñu libéré ci na mu gën a gaawee maître Ngagne Demba Touré te pourtant moom Ngagne Demba Touré ni ki démb dong daa waroon a jàkkaarloo juge deuxième cabinet bi waaye yëngal gi nga xamante ni collègue am yi yëngal nañ ko moo tax ñu mujjee renvoyé audience bi léegi ko yéenekaay ne xawma fu yënguwul waaye benn bokk yaakaar moom mu ngay tas jamono ñaar la xar laa la wax ñi farek président Macky Sall ak ñi farek Amadou Ba seen groupe WhatsApp ba ñoom mouvement ki démb la mujjee explosé wu gannaaw ba ñu seetloo na Ndeye Saly Diop mii nga xamante ni dafa fier ci Amadou Ba képp ku fay wax waxu président Macky Sall mu seppi la nank tege la à côté information bu ñeel Amadou Ba nag mu bàyyi mu jàll jëf yi muy jëf nag moo tax fi mu toll ni group WhatsApp ba gaa yaa ngay kiti de nank par nank te ay responsable yu mag yi nekk ci APR ñooy démissionné yéenekaay bi ne Thérèse Faye mujjee naa quitté groupe ba nee na Fatoumata Tall quitté na groupe ba Sira Ndiaye mujjee naa quitté groupe ba Awa Gueye mujjee naa quitté groupe ba Seynabou Gueye Touré mujjee naa quitté groupe ba Ayam Mbengue mujjee naa quitté groupe ba ba ci Marème Babou ak ñeneen ñoo xamante ne ni li ñu bëgg a dégg mooy Macky Sall Macky Sall seen yoon nekkul laa la wax ci Amadou Ba mu a génne Ousmane nekk ca mouvement national des femmes de l'APR ni coow li coow li nag fi mu nii la ko indi mooy ñenn ñi dañoo bëgg ñu fàtte tuuti nag Macky di wax ci Amadou Ba mi nga xam ne te ni mooy candidat bi waaye am na ñoo xamante ni mënuñ koo wanaasu yéene bi ne gis nga na Ndeye li mu sàkku ci biir groupe bii moo di ñuy wax ci Amadou Ba waaye ñoom TREDFED dañoo lànk ba xalangu ci suuf doon yëgle ci biir groupe bii ne taxawal nañ beneen mouvement mouvement boo xam ne ñu ngi ko duppee mouvement national des femmes de l'APR Macky dans nos veines maanaam Macky Sall moo jeex ci ñun amuñu keneen ku ñuy suivre ku du président Macky Sall lii moo indi coow la nag ca biir groupe WhatsApp ba ba démission nettu leeg male da a dëggal dong na yaa crise et quand y a crise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 biir dafay jooy lu bari di yuuxu lu fort ba sax yow da ngay jaaxle gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nànk dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 10 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñi nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 172 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wir gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum mbokk yi yéen ñu amoon jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram tolof-tolof ci seen dund ci seen wàllu liggéey ba ci seen wàllu sëy solution bi ñëw na ak sëriñ du xari Mbacké boroom yàlla baax sëriñ du xari Mbacké dafay def listixaar bu wér te wóor te leer nañ ñi day def tamit seet façon seet yépp daf koy def moo xam bu biddiw rawxaan kurus suuf waaye tamit képp koo xamante ni am nga gàllankoor am na fi ay sangat yu la mën a jàppale yow mi bëgg bayre wala cat sonal la nga bëgg wërsëg ubbeeku fii daal solution la am na ay jaaro cat jaaro karange jaaro wërsëg jaaro bayre yow mi am jafe-jafe doom yow mi bët sonal lool soxna si bëgg a ëmb te am jafe-jafe jigéen bu am jafe-jafe ci wàllu réglam yow mi say nopp di riir kuy fatt saa su nekk Serigne Modou Khary Mbacké dina la jàppale waxuma la dara sax waaye dafay toj liggéey di dindi tooke ci yaram yow mi am bëñ biy metti ku paralysé mu xam xale nga wala mag yow mi boroom yàlla baax dafay faj tamit ay rab di def ay traitement ci wàllu yaram yow mi tële nag wala bëgg nga gaaw a daanu boroom yàlla baax am na ci ay solution yu gaaw ci yow mi bëgg nopp wala nga yor hémorroïde wala nga bëgg bayra njaay fii ñëw gis fi solution adresse am nag mu ngi ci diwaanu Kër Massar M3 arrêt 54 bi ngay jubal jëm boulangerie 2000 boo fa yegsee foo laajte Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ñu joxoñ la ko pour jokkoo moom tam mën ngeen woote ci numéro yi di 77 ak Serigne Modou Khary Mbacké boroom boroom yàlla baax